asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu ak di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu baal mu mel ne dañu ñëwaat ak ci suñu leson aj ah mu mel ne nag dañuy commencé waat euh, comme fi ngay armale ndax boo ñëwee fi ngay armale li nga war a def ak euh, ba nga war a boo armale ba pare ba sa aj di jeex mu mel ne nag kii dafa ñëw ci miixa bi nga xamante ni fi la war a armal miixa mooy fi ngay dal fi nga xamante ni fi nga war a commencé sa armal boo egsee nooy def dangay daal di sango boo sangoo ba pare nag nga daal laal sa parfum léegi nag bu ko defee mën nga dindi say kawari poqtaan mën nga dagg say boo pare nag nga daal di jël nag yére yi nga war a armale yëre yi arbana nag mooy lii maanaam looy woddoo la nga xam ne day wàcc jëm ci suuf ak benn rida bu ñu wax nga xam ne danga koy teg ci kaw moom mooy sàng li féete kaw soo defee li par nag yéene bi moom mooy armal bi yére yi ngay sol waaye yéene bi mooy armal bi su ko defee nag am na yoo xamante ni aaya nañ la ko après léegi comme def nga nii ba pare yére yii nga xamante ni moom tàmma nga sol nga xam dañ koo ñëw moom kenn dootoo ko sol bu dee góor itam waratul sol mbaxana ah bu dee jigéen itam warul muur kanamam comme nii nga xamante ni lépp lay muur waaye itam ay gants ci bopp mi dañ koy ay jigéen comme gants yu mel nii ah, bu ko defee tam yow mi nga xamante ni yow góor wala jigéen waroo dagg ci karaw waroo watu waaye nag di fo nag loolu moom dañ koo aaye fala rafasa wala fusuuxa wala jidaale fil xaj waaye waloo rëbb waroo dimbali kuy rëbb waloo rekk itam lu ko armal jàpp ah sa jigéen ñi nga ànd let waroo fo ak ñoom waroo sëy ak ñoom waroo bànneex ci ñoom waroo takk jabar waruñu laa may jabar ndax yaa ngay armal léegi nag yombal nañ na mën nga sol sa jaaro loxo bu dee yor nga jaaro loxo mu nga takk montar mun nga sol say verre mun nga kerloote bu naaju tàngee ci parasol wala ci taati garab yi wala ci ronu tabax yi wala boog nga teg say bagage sa kaw bopp lii lépp may na na ko ngir naaj bu tàngee man nga lekk itam loo xamante ne ni ki ko rëbb moom nekkul ko armal mais bu fekkee ne ki rëbb dafa armal loolu du dagan ci yow léegi nag dangay nag commencé nag nag di labbay ko ba ngay àgg kaaba labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna al amda wa niamata laka wal mulku la sharika lak labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna al amda wa niamata laka wal mulk la sharika lak li ngay def nag ba ak si màkka waaye boo agsee màkka am na foo xamante fa ngay jaar boo fa jaaree nag loola nag liñ bëgg sopp ci mooy nga sangu bu fekkante ne mën naa nekk nga sanguwaat nag foofu waaye bu fekkante ne sangu mëntu yomb dangay jàpp rek daal dina guti kaaba ga boo see ci kaaba ga nag lambaay bi nga tegoon ci kaw danga koy jaarale ci sa poqutaanu ndeyjoor bu ko defee sa loxo ndeyjoor dal di nekk ci biti bu ko defee nag nii ngay def nag commencé nag bëgg nag wër kaaba gi léegi nag nga ñëw ba ci kaaba gi pour wër am na benn euh, train bu ñu def boo xam ne moo tolloog ajarul aswat boobu li muy jariñ mooy boo ñëwee ci ajarul aswat foofu ngay commencé nga daal di fóon ajarul aswat bu fekkante ne yomb na bu fekkante ne mën na ko yomb tegal sa loxo sa gémmiñ teg ko ci doj bi teg ko ci sa gémmiñ waaye loolu lépp yombul demal ci ba ca makal ca gannaaw nga yëkkati sa loxo tolloog ajarul aswad nga ne bismillah allahu akbar léegi nag xam nga ne nag dugg nga ci sa tawaaf léegi nag tawaaf bi juróom-ñaar la léegi nag ñett yu jëkk yi moom danga koy gaawal xaw a mel na kuy ñukk loolu moom lañu tuddee ak ramlu dangay mel na kuy waaxu te doo daw loolu mooy ar ramlu waaye ci góor rek moo koy def waaye jigéen du ko def ci ñetti wër yu jëkk yi bu ko nga ñaan ah yàlla wërsëg wi nga ma may yàlla naa ko doyloo yàlla yàlla nga barkeel li nga jox yàlla tim lu ci jóge yàlla na ma ko remplacer moom ngay wax di ñaan ñaanal tam sa mbokk jullit yi yàlla def leen ñu ñëw joxe seen farata maanaam nii ngay def boo ak waatee nag ci ajarul aswad da nga yëkkati waate sa loxo toujours rek boo ci egsee wax allahu akbar ndax lii ngay def ba juróom-ñaari mat ndax xam nga ne tam nag wër kaaba gi benn ponk la ci ponk aj wala umra aj mënul wér te wëruloo kaaba gi waaye itam tawa umra mënul wér te wëruloo kaaba gi léegi nag boo umra boo wëree ba pare li nga war a def mooy julli ñaar rakka fii ci maqaam ibrahima ndax yàlla moo wax ne wattaxasu min maqaami ibrahima musalla ñaar rakka nga fi julli benn bi nga ci jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kaafiruun deuxième bi nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad waaye nag suna la mooy nga gaawal ñaari rakka yi tey itam nag bu ko defee nga xam nit ñi dañ fiy jaar di romb ndax ñi wër kaaba gi di tawaaf ñoom ñoo gën a yell ñoo gën a ëpp sañ-sañ ci kaaba gi ndax ñoom dañuy def farata yow nag sunna rek ngay def kon mën nga jullee foo mën a jullee ci jàkk ji rek baax léegi nag da ngay wàcc nag wuti zam boo nee baa ngi sam-sam nga jël ndox mi ah, boo jëlee ndox mi nga naan ci boo ci naanee nga daal di raay ci sa karaw bopp daal di commencé nag di ñaan yàlla maa ngi lay ñaan xam-xam buy jariñ ak wërsëg wu yaatu wu lew waaye nag ak mucc ak muccilee ak fajuk ajo ci bépp aajo boo paree loolu nag nga daal di wuti nag euh, montagne safa montagne safa nag boo fa àggee da ngay jàngal yàlla wax yàlla moo ne inna safa wal marwata min sha'airillah nga daan nag kon maa ngi commencé fi yàlla commencé boo àggee nag ca jabalu safa da ngay yëg ca kaw boo yeggee nag ngalbatiku daal di jàkkaaroog kaaba gi bu fekkante yomb na bu yombul na foo jëm baax na waaye da ngay wax ne allahu akbar laa ilaha illa allah laa sharika lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأعثاب وعده loolu li ngay wax boo ko defee nag nga di wàcc nag wuti marwa waaye nag eh, nga daal di commencé dox diggante ñaari xeer yi ñaari montagne waaye nag bu fàttee di ñaan di tagg yàlla ndax fii del ñaan rek bul fàttee ñaan waaye dafa am nag ñaari eh, ñaari yu wert pii wert yu ne sa kanam foofu boo fi excès da ngay yokk ni nga doon doxee dangay xaw a ñukk boo ñukkee ba ko jabay nag doo commencé dox comme ni nga doon doxee waaye nag na fexe ba bul gaañ kenn ci ñukk bi yowet fexe yowet bul gaañ nii lañ koy defee da ngay commencé safa jeexale marwa ba juróom-ñaar yi mat nag juróom-ñaar yi bu matee nag xamal ne daf nga beneen ponk ndax biitim ponk la boo nii soo ajee wala nga umra te defoo ko sa aj baaxul wala sa umra baaxul lii nag mooy safa moom la wax safa ak marwa léegi nag boo defee lii ba pare xamal na moom ki doon omra moom omraam nag euh, taxalalul awal bi jeex na maanaam yiñ la aaye woon mooy sa yére yi nga doon yi ñuy ñëw ak mbaxana yeeg yooyu yu ci bari mën la ko yombalal waaye daan rëbb bi moom ak jigéen ñi ba léegi dafay des nee na boo paree da ngay daal di uh, uh, watu wala nga wàññi sa nag sa karaw boo defee nii nag xam na nag sa umra daal nay mat nga daal di commencé nag toog màkka nag léegi nag di xaar bisu juróom-ñett ba ci tabaski pour nga armalaat def nii nga defoon ñëwaat waraat kaa bi comme ni nga ko waree woon doxaat safa ak marwa léegi nag booy def aju tamattu dangay ñëwaat daal di sanguwaat daal di taye bu daal di solaat sa yére parfum yi man ko laal bi nga armalagul waaye boo armale doo ko laal nga daan nag waaye boo ci boo ci def rek danaan labbayk allahumma hajja léegi nga commencé comme allah akbar nga daan wax léegi nag comme def nga kaab gi yéegi nag yaa ngi wuti mina soo àggee mina da ngay fanaan dangay ngay yend foofu nga julli fa tisbaar julli fa takkusaan julli fa timis julli fa gee waaye benn bu nekk ci waxtu mu koy julli kenn du ko boole waaye dañu koy wàññi dañuy wàññi julli xay ñeent ràkkal yépp dañ koy def ñaar su ko defee nag nga daal di fay fanaan foofu guddi googu boo fanaanee nag nekk fa ba euh, salaatul fajar ñëw nga julli salaatul fajar waaye boo julee suba pare nag toogal foofu di ñaan ñaan rek di ñaan ndax fii barabu nangu koy ñaan la bul fàtte ñaan ñaan nag ba jant bi fenk léegi nag jóge nga Mina yaa ngi jëm nag Arafa nga julli fa tisbaar ak saan boole leen ngaan ak imam bi ci masjidu Namira bu fekkee yomb na tisbaar di takkusaan nag dañ koy boole dañ koy wàññi léegi nag nga dem Arafa waaye am nay frontière ndax masjidu masjidu namira bi mi ngi nekk ci waadi orana waaye bokku ci arafa man nga faa julli nag waaye bokku ci arafa na fexe fi frontière arafa ne nekk su ko defee nag nga jàll arafa dem commencé di ñaan nekk fa di ñaan ni ko yonent woon defee sallallahu alayhi wa sallam ndax itam bokk na ci ñi diglee nga ko fay wax naan laa ilaha illa allah sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bokk na ci ñaan yi xamante ni mën nga fay waxtu suuf ba ba nga fay nekk ak jéggalu ak toroxlu nag tox ba bi fenk maanaam li ma lu baax li mën a ñaan bari na ku fa dem rek na def loolu ba jeexal waaye nga xam ne taxawaay arafat bi nag mi ngi bokk ci ponki aj maanaam boo demee Makka te dimoo arafa na sa aj baaxul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na al ajju arafa léegi nag yaa ngi jógee arafa ndax jant bi sono la fa waaye doo fa jullee tamit da ngay wuti nag musdalifa boo demee musdalifa nag danga nga fay julli ñaari julli muy eh, eh, timis ak gee nga boole leen ba pare nga wàññi julli gi nga wàññi gee gi léegi nag nga toog fa nag fanaan fa ba bëtët nga julli fa fajar balaa jante fenk nag nga fay jóge wuti nag jamratul ba mooy jamara bi nga xamante ni mooy ñetteelu jamara bi moo gën a sori Màkka man fekk da am gàtt nag mën ngaa wëlbati ko ci guddi gi dem Musdalifa sànni jamra bi waaye boo fekkee ne amoo benn gàtt da nga xaaru bët nga ñëw fii sànni juróom-ñaari xeer xeer bu nekk dafay ànd ak allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu loolu ngay wax ci xeer bu nekk waaye nag na nga moytund di eh, eh, buuxante bay gaañ sa bopp wala ngay gaañ keneen fexeel rek ba joxe sa farata yow moo gën ci yow ngay tudd yàlla nag bu baax Ah, ah, maanaam nag kenn du sànni ndox xëy benn yoon xëy benn benn benn lañ koy sànni ba muy juróom-ñaar soo boole ndox xëy sànni benn yoon benn xeer nga am xeer bi yaa ngi koy téye sa baaraamu sànnikaay baraamu sa baaba ak baaraamu dëy bi nga sànni juróom-ñaar boo ko defee mooy sa sànni jamra léegi nag sànni nga jamono pare da ngay wëññi ko nag boo amee boo des sa hëd yu nag léegi nag nga rey sa hëd yu moom la wax tabaski boo rayee hadi yu pare nag ci ngay doog nag watu walla nga wàññi sa karaw bu dee jigéen a dana ji wàññi ci létt bu nekk lu tolloo cetul baaraamam maanaam loolu lay wàññ mooy itam ndax moom fokk nga wàññi bu paree nag léegi nag sa taxalul asar jeex na maanaam man ngaa am yoo xamante man koo def mooy sol yëre yu ñëw léegi bu la neex man koo def waaye jigéen ñi moom ba léegi daganatu daganagul léegi nag dangay ñëwaat nga sang sol sa yére yi nga li aaya woon man koo sol léegi nag nga egsi nag euh, ci kaaba gi def tawaaful ifaada tawaaful ifaada nga daal di ñëw comme ni nga tawaafa woon daal di ñëwaat sol sa yére wër kaaba gi juróom-ñaari yoon boo paree nga def comme ni nga defoon daal di dem safa ak marwa boo paree nag lii nag sa aj li ci ëpp jeex na kon yi nga xamante ne aaya woon nañ la ka lépp dagan na ci yow ba ci say waa kër yi nga àndal léegi nag dangay wëlbatiku nag Mina ñëwaat nga fanaan fa guddi fukki fan ak benn guddi fukki fan ak ñaar guddi fukki fan ak ñett am na nag ñooy def ñaari guddi rekk waaye bu la fa jant bi sooyee foog nga def ñetti guddi tanga nga xamit ne fanaan ñetti guddi fii mais waajibun min waajibaatil xajj ndax kenn mënu koo bàyyi te amuloo ngànt il faut nga ñëw fii fanaan fii ndax yàlla moo wax ne wa attimul xajja wal umrata lillah waaye nag boo fi nekkee fan yi nga fi nekk ñetti fan yi bul fàtte sànni ñetti jamra yépp loolu dafay nekk bu fekkee jant bi fenk na dana dagan ci yow nag nga sànni jamra yépp guddi bu fekkee am nga ngànt mën ngaa dem nga sànni ko waaye li gën daan mooy nga yow ba sawaal nga dem sànni jamra yi waaye jamra yi ñetti jamra la woon sànnoon nga benn bi léegi jamratul ula jamratul wusta ak jamratul aqaba boo àggee ci ula nga sànni sa juróom-ñaar taxaw ñaan sànni ñaareel bi taxaw ñaan ñetteel ba nga sànni dem sa yoon soo paree nag nga daal di wàññi ko wàccaat màkk ñëw ci kaaba gi def taxawul wadaa sa aj jeex na yàlla na yàlla def ñun dégg ak topp may ñu ñu dem aji joxe suñu farata bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam